aus billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi diin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqima siraatal lazina an'amta alayhim xayril maxlubi alayhim wala daalin bismillah barke borom Touba barke Cheikh Babacar Ndiaye Thiargane ah waa ku tedd ku ñoo ngi fii ci biir kër sëñ Moussa Ndiaye doon doomi sëñ Mouhamadou Sanusi mi nga xamante ne mooy ñaareelu xalifaab seex Babacar Ndiaye Thiergane euh, Cheikh Ndéla mooy xalif premier xalifaab Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane sëriñ Mouhamadou Sanusi moo ci topp doon ñaareelu xalifaab seex Babacar Ndiaye Thiergane sëñ Mut Socé moom nag moo jur ki nga xamante ne mooy sëñ Mut Sey Ndiaye mi nga xamante ne moom lañ nekk ci këram tey jii di joxe li nga xamante nii mooy xiiwal yi nga xamante ne moom la ñuy berndee fii ci bisu màggal gi fii ci biir kër gi ñu ànd ko nag ak mbokki taalibe yépp di liggéeyal Serigne Touba ak Cheikh Babacar Ndiaye Thiargane ah mu doon bis boo xamante ne nag bis bu rëy boo xamante ne fierté la ci bawal gépp doon njotu bawal muy bisub tey bii njot la ci tund bawal gépp ndax sëriñ Touba day ki nga xamante ne mooy Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane bis bi nga xamante ne Cheikh Babacar njaay Thiergane jóge na fii dem Njaareem muy ñaareel bi yoon bi mu fekkee sëriñ Touba ci Njaareem sëriñ Touba da koo yendoo ganale moom ak kilifa yu bari yàlla dogal bi ñu befee bernde yi kon nii nga xamante ne moom lañ koy defee ci màggal gi ba tàkkusaan sëñ Touba di xelli warga ci loxol boppam mag ñi nga xamante ne ñoo fa bokk nekk ak moom nga xam ne ñooy seex yi képp ku ci sëriñ Touba jox sa kaasu warga rek nga daal di koy naan Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane daal di jal suuf si daal di koy defal xóot-xóot ci digg bi kaas bu ko sëriñ Touba jox rek mu sotti ko ci biir xóot-xóot bi. ba sëriñ Touba xel ñetti baraade yi ba mu mat kaas bu mu ko jox rek mu sotti ko ci suuf si ba ñetti baraade yi mat Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane daal di dindi kaalaam lal daal di tegg suuf su tooy si daal di ko ciy ëmb daal di koy uuf sëñ Touba daal di muuñ daal di ne ko Babacar njaay mu ne ko Mbàkke mu ne ko ana lii nga def loo ci jublu mu ne ko lii ma def dey damaa xam ne Mbàkke sa xajul ci benn biir ba tax na ma bëgg suuf si su ma demee sotti ko ci suufu su làmbaay ak mexey ku dox ca suuf su boo dee dem àjjana sotti ko ca teen ya ku ca naan boo dee dem àjjana sotti ko ca suuf sa jur ga ca lekk ko ca lekk boo dee dem àjjana Sëriñ waa daa di tàng jër daa di fatu tisbaar ba tàkkusaan Sëriñ waa daa di génn daa di ne ana Babacar Ndiaye Thiergane ñu woolu Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane mu ñëw mu ne ko Ababacar Ndiaye mu ne ko Mbàkke mu ne ko suñu boroom xamal na ma ne bisub tey jii da am rambu nga képp la gis ku la gis tey jii aw yaramam araamal na safara atiixullaahu fa kullu man raani Babacar Ndiaye Thiargane aramallaahu jasudu niiraan Cheikh Babacar Ndiaye Thiargane tey bët bu la gis tey jii aw yaramam araamal na safara mu doon loo xamante ne nii kon bu ñu eggee ci bis bii bawal gépp ànd di ko def mu doon loo xamante ne dañu koy njukkale Cheikh Babacar Ndiaye Thiargane ndax kat bu dutoon ak Cheikh Babacar Ndiaye Thiargane suufus làmbaay ak tund bawal doonoon na suuf soo xamante ne suuf si ñu gën a na mën a lekk moyaal gën na mën a tuur deret suuf yooyu ci la bokkoon waaye nag Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane ca mbaaxam ga ak ca teddam ga ak ca bëgg baaxam nga ak gëm gëm gëmoon sëriñ Touba tax na lépp loo xamante ne nii rek doonoon na ay jafe-jafe ci suufus bawal Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane teggil ñu ko ba tey jii doomi bawal yi fépp fu ñu dem ci Sénégal ak fu dul Sénégal ñoo fa man kon bisu tey jii bu yàlla dogalee ñu teew fii ci biir kër sëñ Mout Sey Ndiaye mi nga xamante ne mooy xalifaab sëñ Mout Soose ñu yend fi tey jii di birale bis bii nga xamante ne mooy bis bi nga xamante ne moom la ñuy màggalal Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane ñoo ngi ànd ak suñu mbokki taalibe yi nga xamante ne ñoom lañ bokk nekk fii ci biir waañ yi ñu xàmmee ci sëriñ a Seye ak sëñ Mamadou Faye ak kilifa yi nga xamante ne ñoo nekk ci waañu soxna Fama Dieng ak soxnaam sii nga xamante ne mooy soxna Saylo ak euh, nawleem yi nga xam ne ñoom la nekkal fii ci biir dëkk bi ñu ànd nekk fii ci biir waañ wi fa tabaarakàllaa dara manqué wut rey nañu ay nag rey nañu ay xar rey nañu ay ginaar boisson baa ngi fi xeeti teraanga yëpp a ngi fi mboolem koo xamante nag bokk nga ci Cheikh Babacar yaa ngi ñëw fii tey di ndokkeel seex Cheikh Sëriñ Moussa ci bis bi ak waa kër Cheikh Aliou Diouf Lambaye ñoom ñëpp ñu ngi fii tey ci bis bi ñu doon bis boo xamante ne ñu ngi koy ndokkeele Sëriñ Mouhamadou Sey Ndiaye mi nga xamante ne tey jii mooy jëmmal bis bi tey jii ci këram gi ci Mekhe Lambaye ñoo ngi sant mbokk jullit yi di sant mbokki taalibe yi tey ñaan ci kàttanu yàlla yàlla nañ ko def ay ati at te kenn bañ koo wuute bi jaay Cheikh Khadim Barke Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane ñoo ngi leen di sant yéen waa rajo bi nga xamante ne yéen la yàlla yebal ngeen ñëw fi yàlla na ngeen dem ba rajo bi doon ay rajoy rajo ak ay télé tele bi jaay seexul xaddim ñoo ngi sant mbokk yëpp di gërëm ñëpp di ñaan ci yàlla yàlla nañ ko fekk ay ati at bi jaay seexul xaddim asalaamaaleykum wa rahmatullah